Euh, man la monsieur Falilou Ndiaye Ewen Falilou traiteur euh, je suis un expert de la restauration collective et je suis en même temps le président de l'association nationale des traiteurs du Sénégal waaw association bi li ko wundu mooy traiteurs yi nek traiteur yi nek Sénégal yëpp dañu dem ba sentir pour organiser et ramener aussi dolé ñu ne nañu organiser euh, euh, initiative bi former un groupe hein. groupe partout au Sénégal qui puisse ngi ci sa bob nous avons que association qui ah créé association waxtaan ci sunu biir dajaloo. Ah, mais biñ ñu dajaloo ba formé association bi ba pare nag ñu ne association bi dañ ko war a euh, wutal une reconnaissance juridique. c'est en ce moment-là qu'on a requis euh, les compétences d'un expert à la matière euh, mu teg ñu ci yoon. loolu moo indi assemblée générale bi euh, pour ñu mën a nekk une association légale avec des papiers légaux et, nous serons reconnus par l'État. notre objectif premier d'abord, c'est de fédérer les traiteurs, mais ensuite assainir le métier. Parce qu'on se rend compte que maintenant, mini pizza alors que traiteur euh, c'est un manager eh, pour que être traiteur, il faut que nga am des notions sur le management de la restauration collective. loolu dafa laaj ay compétences. ndax d'abord de dafa sensible sensible pour xam ne eh, ku ci surtout lekku mbooloo dafa war am loo war a xam les règles de l'approvisionnement war nga règles de conservation des denrées war nga xam règles de l'hygiène alimentaire war nga

képp ku am cérémonie da ngay soxla traiteur et te li fi am ci ay cérémonie ci Sénégal li fi nekk ci traiteur attanuñ ko ngénte yaa ngi fi ngénte yaa ngi fi déj yaa ngi fi association yaa ngi dajaloo pour di lekk et oni on est dañu nekk ci eeru restauration différée léegi même les sociétés dañuy bëgg ñëw am ñëw di leen indi lekk ñu lekk fii ñu nekk kon loolu yaatu na yaatuwaay boo xam ku nekk am nga ci place na fekk nak ne kenn ku ci nek nga jël la nga attan loolu yëpp danañ ko waxtané té ko ci yoon amna ño xamné dañ dañu passionné bëgg ci dugg te xamuñu yoon ñoo dañ leen teg ci yoon ñu ci nek aussi te seen liggéey sellul danañ ko sellal te képp ku ci nekk dañ la da ngay nekk chef d'entreprise war nga am ay papier yu réglementaire papier yooyu dañ ci dimbale nit ñi ndax ku bëgg a liggéey ak état bëgg a liggéey ak entreprise il faut que nga am ay papier il faut que au moins nga am benn société constituée il faut que nga am NINEA ak yeneen ak yeneen lu lay mën a permettre nga liggéey ak état yooyu danañ ci dimbale traiteurs yi pour ñu nekk en règle mën a liggéey su fekkee ne itam da nga war di fay ay droit ñu wan la yoon wi nga ko war a fayee nga di ko fay donc dañu bëgg ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci liggéey daal ñu mën cee jariñu macha allah eh, damay sant yàlla bu baax a baax ndax lii dama toogoon sama kër xalaat ko bi ma ko xalaatee si laa ko def yàlla dogal nag par ma voix lii tey am mu am amit amicale des amicale nationale des traiteurs du Sénégal waaw waaye du maa ko moom maa ko initié waaye dama ko initié pour àddina ndax lii dafa jotoon ñu def ko Sénégal toll na foo xamante ni ñëpp reconnaître nañ sëf nous les traiteurs du Sénégal maçon yi sax am nañ am nañ association ba ñëpp ñëpp booloo nañ te ñun traiteurs yi tey ñoo toll foo xamante ni eh, li gën a baax ci réew mi ñoo koy joxe li gën a neex ci réew mi ñoo koy def te booloowuñu suñu bopp ñun moo amati jalousie loolu la ñuy xëcc nag pour mu dindi pour mu dañ pour ñu dem au niveau de l'état ñu ñu ñu xam ñu. Nous avons les fonctions les traiteurs du Sénégal pour les du Sénégal les traiteurs du Sénégal dafa jot nak ñun ñu wone suñu bopp mo taxone tay ñu dajale amical bi on est plus de 150 personnes mais ni la yalla dogal tay mais nak on est prêt à travailler jusqu'au bout pour atteindre objectif bu euh, Sénégal actuellement fi ngay wax ni ci salle bi amna wa waa Thiès am na waa Ndar am na waa Mbour ñoom ñoom ñu ngi fi kon traiteur national du Sénégal euh euh c'est pas seulement Dakar c'est national amna ku nek Maroc mi ngi si biir groupe bi amna ku nek traiteur bu nek France mi ngi si biir groupe bi kon c'est c'est national international eh, yamale wuñ ko Dakar rek tay présentement présentement ni wa Thiès wa Mbour ak wa ki yeb ñew nañ ci. non defuñu cotisation mensuelle c'était ay proposition la won dañu def ay carte membre yom hologramme am lépp normal les carte membres c'est à 10 000 francs

wa ñoom ñëpp ak ñu toog ñu jàkkaarloog man dama koy waxaat ñëpp dégg waaw ndax àddina nit li nga def moi je l'ai fait avec 35 ans d'expérience expérience kon xam naa bu baax me may def waxuma ko parce que maa fi man dama koy wax parce que je l'ai fait ñi ma tiim ñi ma tiim xam nañ ma am na ñu ne si yéen ñu xam bu baax li def li ma def Sénégal man xam naa ko te xam naa man et je suis le meilleur au Sénégal